bonsoir à tous et bienvenue l'invité de 7TV Soir waxtu wi jot na sunu gan yegsi na ñu am plaisir di recevoir euh, tey ci plateau bi Lass Badiane Lass Badiane il est le président du mouvement euh, Jëm Kanam bokk coalition euh, Diomaye président Lass maa ngi lay nuyu. jërëjëf Mamadou du Ndiaye maa ngi lay fay di bëgg lool ci dalal gi ma dalal ci 7TV. jërëjëf c'est un plaisir pour ñun ñu lay recevoir euh, la première question bi ma ñëpp laaj bi ma affiche bi génnee mooy depuis quand LAS fait euh, fait partie de la coalition Diomaye Président. waaw loolu yàgg na parce que LAS ñëpp xam ne ne euh, ba mu gelé ay activités am ba muy ànd ak président Macky Sall. donc ça fait plus de deux ans. Mm -hmm. élection locale 2022 sama liste bopp laa demee. c'est donc ba ma géré samay activités après nag ba ñu demee ba ci biir. jo président Diomaye di sama xarit di sama wëllëre ba mu soxlaa réew mi donc ma dem seeti ko waxtaan ak moom bokk ci coalition mu jàppale ko. Ah, léegi par rapport ak sa compagnonnage ak le régime précédent parce que président Sall moo ci nekkoon sa ndawle yow parce que daan gis très souvent ngay euh, critiquer les autres acteurs du régime. Mm. Euh, ce régime sanctionné en 2024 qu'est-ce qui a été déterminant pour que sénégalais yi euh, jël décision changer de pouvoir. waaw mooy li ma yàgg wax ci plateau ma yàgg ak ñàkk yëg nit ñi. ak bañ leen faale ak bañ leen yërëm ndax askan boo leen jiitee da nga leen yërëm. Mhm. xam seen bëgg-bëgg di ci dox waaye bu ñu la joxee nguur nga beew di wor di di dugg ci njuuj njaaj di lekk alalu réew mi di di jaax eh, jël suuf si di ko jaay di ko jox say mbokk donc résultat bii nga mën a am. Mhm. man loo xam ne président Macky Sall suma papa la suma xarit la donc kóllëre moo ñu moo ñu moo ñu boole. moo taxan ma ko doon jàppale loolu ma ko doon wax ci plateau yi bu ñu wéetee ma koy wax mhm. donc loolu moo moo indi sénégalais yi changement lañ bëgg dañoo bëgg ku leen yërëm dañoo bëgg kuy dox ci seen jafe-jafe dañoo bëgg kuy saafaral seen i bëgg-bëgg moo tax it ñu def changement bi jël président Diomaye euh, jox ko plébiscite te yaakaar naa ne li ko askan bi yaakaaree incha allah dina ko matal. ah dinañ ci ñëw ci le président Diomaye mais laata loolu le régime précédent wax nga ne am na yoo yàgg di dénoncer. tey jii nii sañ nañ que ne les cafards ñi ngi commencé génn par rapport ak au rapport euh, ak aussi des constats par rapport ak seen i ay euh, euh, doxalin ci li nga xam ne doon na am dans le passé c'est sans surprise pour pour yow. waaw déedéet xam nga man lu ëpp fukki at maa ngi maa ngi wax ne Macky Sall ñi mu àndal ñu ci bari kenn jubu ci. Mm-hmm. seen bakkan lañ topp yërëmuñu askan wi. amaana nag boo nekkee ay nit nga leen koy wax dañuy jàpp ne intérêt personnel lañ te man chef d'entreprise laa man Macky Sall la kaasu Café Touba mosuma koo may mosuma yaakaar dara ci moom yàgg naa toog sa palaato ak yeneen plateau di wax ne. Mhm. man ku dul yàlla sunu borom ak su may barke waajur yaakaaruma la. donc nit boo ànd ak moom te munoo koo wax dëgg damay jàpp ne ànd bi du sincère te ñi nga xam ne ñoom ñoo ngànkoon euh, réew mi nekkoon nañ yor doxin wu ñaaw boo xam ne ku am ngor. alors ku ragal yàlla ku am looy seet nga yërëm askan wi da ngay xam ne ñii ànd ak ñoom erreur la. mais est-ce qu'on leur a pas un mauvais procès fi ñu jëlee réew mi en 2012 ak fi ñu koy indi en 2024 parce que aussi y a eu beaucoup de problèmes ci diggante bi yoo xam ne le régime a su tenir ba sénégalais yi xëy na am na ay critiques après mais au moins Sénégal est resté un état debout. waaw déedéet kenn du wax def table rase ñëpp xam am na lu mu def ci réew mi. am na lu mu ci liggéey loolu ku ko waxul it waxooloo yàlla. Mhm. am na lu mu liggéey waaye malheureusement xam nga Macky Sall ci xel bi. xa ay xalaatam day mel ni Lionel Messi waaye ci ay doxalim buy matérialiser day mel ni mbay Diagne wala Crépin Diatta maanaam li muy xalaat baax na loolu waaye bu koy bu koy matérialiser. Mhm. day am ay jafe-jafe. da ngay jël loolu lan moo ko waral une mauvaise équipe à sa côté mauvaise équipe parce que ñi ko topp Macky Sall li ko daaneel li ci ëpp transhumant yi la. Mhm. maanaam ñi nga xam ne ñoo ko doon xalab démb ak barki démb dàq ko PDS di ko saaga. ñooñu xamuñu yuqu APR ñooñu ñoo ànd ak moom pour ay intérêt parce que ñu ci bari ci ñoom amuñu xëy amuñu ngont ñoom ñoo ko topp nekk ay lodatoram duñ ko wax dëgg xamuñu askan wi jafe-jafe yi ñuy dund parce que man ñu dëkk ci banlieue bi mhm. di yeewu di gis samay morom samay moromu wayjur samay nijaay samay bàjje nekk ci ay jafe-jafe ma nekk jafe ma am dund jafe-jafe yi ak ñoom kooku boo mënee toog dangay xam li nit ñi di dund waaye ñi nga xam ne dañoo transhumé ñëw ci nguur beew xamuñu xamuñu xamuñu xaalis. Mhm. jël alalu réew mi jaabaa jonge donc du ñu mën a yërëm nit ñi te sànq maa ngi koy wax nit ñi boo leen bëggee jiite dañ leen yërëm boo leen yërëmul mënoo leen jiite. ah sous le président Macky Sall euh, parce que on peut pas dire que ne régime de 2012 à amul euh, benn euh, ñàkk jubal ci wàllum am euh, gestion la preuve bi bi mu waddee tey rapport yi nga xam ne génn na. Euh, lu ci bari euh, doy na waar maa ngi lii léegi ne Cour des comptes gën a war na yeneen 30 rapport donc fan fan lañ jëm à à sa à ce rythme. xam nga loolu rek mooy wane ne Cour des comptes euh, seen wareef dañ koo deful parce que semaine passée mënuñoo génne ñeent fukki rapport 40 rapport tey yaa moins de 10 minutes nga génneewaat yeneen 30 rapport donc day wane ne ñoom defoon nañ seen liggéey. ñeenti at. Mhm. waaye président moo bañoon rapport yi génn parce que président li taxoon Macky Sall li taxoon mu bañoon rapport yi génn xam na ne ñi ko wër ay sàcc lañ. ay njuuj njaaj lañ doon def dañu doon luubal alal réew mi te xamoon na ne rapport yooyu bu génnee sénégalais dañuy pare ci ñoom dañuy pare ci nguuram parce que boo xoolee rapport mhm. amul kenn ku ci def lu lu jub mhm. jaay nañ terrain euh, surfacturation passation de marché yu bon euh, jël ay indemnité yoo xam ne indi yu ñu koy jox seen bopp mhm. di jël seen i seen i soxna seen i doom seen i jarbaat di leen def recrutement yi nga xam ne dëppawul ak législation bi di nekk ay président conseil d'orientation wala président conseil d'administration ci ay Euh, agence ak ay direction yoo xam ne législation bi nangu ko mhm. donc loolu yëpp ay euh, joyante la yoo xam ne président Diomaye da ko war a def moo taxit rapport yi Macky Sall moom moo waxoon ne am na rapport yoo xam ne daf cee teg concom mhm. moom bu xamee ne rapport yi bu génnee du baax ci moom moo taxit mu bañoon rapport yi génn waaye sénégalais yi juumuñu ndax ba ñu jëlee président Diomaye ak ànd ak le premier ministre Ousmane Sonko fal ko xam nañ ne maanaam transparence dans la gestion parce que président Diomaye aussitôt mu falu mhm. dafa jox directive cour de contrôle yëpp. nañu publier tous les rapports. te publication rapports yi dafa am lu mu wane xam nga bu ñuy fayub daal. Mhm. daay ndox yëpp baax ndoxu douche baax na ndoxu robinet baax na. essentiel na fay ndox essentiel na fay. Mhm. waaye bu ñu fayee ba pare ba bëgg tabaxaat ndox mu sell ngay tabaxee. ça c'est vrai moo tax it coalition Diomaye ñu bari ànd noonu ñun. Mhm. ñu bari parce que boobu daay dafa am dañoo bëggoon fay. waaye rapport yi bu mu génnee am na ci ñoo xam ne dootoo leen dégg. am na ci ñi nga xam ne dañoo nekkoon ci ancien dafa régime bi bari woon wax lool. Mhm. di ñëw ci média yi di tànqal nit ñi di di sax menacer nit ñi di leen fatt. ça mel ni yow yaa leen jur wala nit ñi dañoo jébbalu ci yow. waaye ba rapport yi génnee dañoo def tekk parce que xam nañ ne dañoo sàcc alalu réew mi te président yi fi mu jëm mooy transparence képp koo xam ne def nga ndëngate. danañ la yóbbu ci yoon parce que alal bi du alalu président Diomaye Faye mhm. du alalu président du premier ministre Ousmane Sonko du alalu Lass Badiane du alalu kenn alalu askanu Sénégal. mais justement est-ce que rapport yi nekkul couteau à double tranchant dans la mesure où yaa ngi koy wax léegi am na ñoo xam ne fi lañu nekkoon di jaay làmmiñ bu rëy mais tey jii dañoo noppi mais am na ñoo xam ne ils ont quitté le pouvoir précédent bi fi jóge rejoindre a des noms à ce que beaucoup pensent nante la du ngaaka mhm. c'est un homme réfléchi ndax man xam naa ko mhm. président nag du am xarit sama xarit la woon ndax léegi président de la république pouvoir est un ami de moi non non mhm. loolu mu nekkatul sama xarit parce que c'est le président de la république il n'est l'avocat d'aucune obédience il est le président de tous les sénégalais donc li ma amoon ci moom mënatuma koo am ci moom donc président wu ñëpp la waaye rapport yi li muy li koy dimbali mooy li ma la wax ne daay bu amee ndox yëpp la ñuy soxla waaye nag bu tabax jotee dañuy dañuy segg. mais aussi est-ce que est-ce benn euh, populisme accompagné wul euh, liy xew nii maanaam les rapports qu'on rend public nit ñi di wax alors que am na yoo xam ne sax c'est pas méchant c'est juste ay mbir la yoo xam ne irrégularité yu ndaw ndaw yoo xam ne mën nañ ko def ci sutura sans pour autant ñu entacher benn benn. waaw non xam nga xam nga la particularité mooy. Euh, lorsqu'on confie les rênes du pouvoir. Mhm. vous devez être transparent. xam nga 70 rapports en moins de 10 jours loolu c'est un scandale donc corps de contrôle yi. yoroon nañ plus de 100 rapports yoo xam ne. qui datent depuis plus de trois ans quatre ans qui n'ont pas osé publier. est-ce que ñoom la ñu war a réformer pour que ñu gën a am les coups de franche. non am na des réformes dans les institutions des réformes de l'administration yoo xam ne donc euh, avec le projet ñu ngi dinañ ko initier aussi bien au niveau de la justice. Mhm. Euh, au au niveau de la Cour des comptes au niveau des institutions au niveau même de l'administration publique parce que au-delà même de ces rapports il des ministres qui mais pire. il y a des fonctionnaires de l'État en ce moment. il a des fonctionnaires de l'État c'est-à-dire des DAGE. Ouais. des DAF des directeurs administratifs financiers en complicité avec leur leur leur, leur ministre de tutelle. Mm -hmm. qui ont pillé l'économie de ce pays là. ñoo xam ne sàcc nañ alors réew mi donc ñooñu il faut que ñu def une réforme de l'administration parce que ni ko président Diomaye waxee jub jubal jubanti. Mhm. réew mi dañoo yónni yàkkamte ñu te Mamadou maa ngi lay xamal la ma doon wax démb ak barki démb moom laay waxaat tey. sénégalais yi dañoo sonn sénégalais yi dañoo fatigué sénégalais yi dañuy dund ay jafe-jafe yu metti mais justement donc jafe-jafe yooyu. Mhm. président Diomaye ak son premier ministre Ousmane Sonko. ils en sont tellement conscients que moo tax it ñu génnee euh, transparence dans les rapports ku ànd ak ñun man Lass Badiane benn rapport épinglé wu ma. musuma gérer benn denier public waaye ku ànd ak ñun. wala ku àndul ak ñun. Mhm. te rapport épinglé nga. bul xaar mukk ci président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu lay jox nomination parce que sénégalais yi dañoo bëggul. mais nee nañ nee nañ rien de nouveau sur dans la mesure où euh, li ñu gis ni jamono jii du lu fi bees euh, président Sall mi soog a falu il a perdu trois années ci lu mel nii gis nañ fi mu mujj récupéré wuñ dara Ablaye Wade en 2000 Mbaye Mbaye Diouf dañ nañ ko DG Sicap ba tëjoon nañ ko après mujjul fenn donc est-ce qu'on perd pas du temps pour rien mënoon nañu ko def sutura justice liggéey ci ngeen bañ ci communiquer te jublu mooy suñu différence ak le différent régime mooy ñoom dañoo accentué woon sur la traque des biens mal acquis ñun au sein de l' administration defuñu ko une priorité c' à di dañuy wan sénégalais yi ne yéen ñu dénk dañuy transparent maanaam ñi fiy luubal dañ leen di wan pour ngeen xam ne ñii ñoo sàcc seen alal ñii duñ ñu rejoindre ilaa yow mi diin léegi nag loolu d'un côté la d'un autre côté on est dans la gouvernance on est dans l' application des mesures édictées par le président de la république sous l'autorité du premier ministre. mooy jafe-jafe sénégalais yi mooy dund bi seer gi nga xam ne euh, fii ak semaine prochaine dina am ay jéego yu am solo yoo xam ne premier ministre Ousmane Sonko dina ko annoncé donc euh, ci wàllu location bi ci wàllu réforme yi ma la doon wax ci wàllu institution yi ci wàllu même euh, traitement salarial dans l'administration publique. parce que dafa am foofu luñ ci mën a def. non parce que dafa am dafa am waaw dafa am benn inégalité bu am. dans hmm. le traitement salarial parce que je donne juste un exemple. da ngay xool takk der yi nga xam ne ñu baax mooy gendarme yeeg pénitencier yi ñu nekk par exemple euh, au niveau du ministère de la justice mm-hmm. particulièrement au tribunal de grande instance or classe fonds ko yi bu ñëwee ñoom duñ ci bokk te gendarme bi nga xam ne dafa nekk buntu trésor wala douane wala wala wala wala wala wala impôt et domaine mm-hmm. moom da ciy am donc dafa am benn inégalité dans le traitement salarial mm-hmm. te loolu le premier ministre Ousmane Sonko mi ngi ciy liggéey donc dinañ def une réforme waxtaan ak tous les acteurs pour mën a réguler le traitement salarial parce que tamit il faut savoir que euh, économie Sénégal mënatul attan yenn salaire yu jéggi dayo yi te ñun président jomaay fay li mu wax askanu Sénégal mooy ak lu mënta xew dafa leen di wax dëgg. Mhm. dafa leen di wax li état bi mën a attan ak li état bi mënta attan. te mënta fu mu toll nii am na ci ay niche yoo xam ne mun nañ ko dem récupérer pour mën a jël alal bi dugalaat ko ci ci ci askanu Sénégal. parce que à la différence du défunt régime. ñi nga xam ne dañu doon njuuj njaaj di jël alalu réew mi di ko def seen bopp di ci tabax ay immeuble di ci yóbbu seen i doom Canada ñuy jàngi pour après ñu ñëw jiite ñu ñun le président Diomaye ak le premier ministre Ousmane Sonko dañuy jël alal bi nga xam ne nit ñi dañ ko doon njuuj njaaj di ko sàcc ñu dugal ko ci ci mbay mi si nga ren budget mbay bi budget agricole bi campagne arachidière bi mi ngi toll ci cent vingt milliards daaw mi ngi tolloon ci ñu ngi annoncé woon premier ministre bi fa nekkoon mm. mi ngi annoncé woon cent milliards te defuñu fi sax soixante-dix milliards parce que c'était de faux chiffres ren premier ministre Ousmane Sonko mi ngi annoncé cent vingt milliards te dina ci def cent vingt milliards. mais léegi laas ma leen moom xaw a jaaxal en euh, bi ngeen euh, nekkee au pouvoir ak léegi. Euh, ñu ngi leen déglu ci yenn yenn annonce yi euh, yenn yëf yi ngeen approprié ko alors qu'on sait tous que l'État c'est une continuité lu ci bëree bëri ñi fi nekkoon ñoo ko négocié woon tàmbali ko bu pare yaa ngi may wax léegi wàllu mbay mi on a vu des tracteurs yoo xam ne le président Sall les avait annoncé ba ñu war ko réceptionné tey ni ngeen jël ko féetale ko seen seen bilan bopp ba koy ba koy bàkkoo loolu benn la ci ñaar aussi di ma ci wàllum euh, les les les producteurs régime précédent bi amoon na ay jafe-jafe par rapport distribution semence yeeg intrant yooyu noonu mais teewul euh, les paysans les bons impayés déggatuñ ko woon depuis de longues années yooyu yëpp aussi yéen a ngi koy wax comme si lu bees la fi alors que dara dara dara dara bees fi dafa am benn leeral bi may leeral ñun jëluñu les acquis li fi nekkoon jël ko sànni ko ci mbalit bi lépp lu baax dañ koy jël mais da xool. communiqué la preuve doguma la la preuve. le PSE bi ngeen doon wax lu nekk tey ji moom ngeen di continuer ba encore quelques mois. ci kanam xam nga man chef d' entreprise laa. Mhm. gis nga boo hérité une entreprise wala nga euh, hérité benn kër dangay ngay hérité le passif et l' actif. Mhm. PSE bi kenn waxul ne lépp bon mais xoolal communiqué conseil des ministres bi passé programme 100000 logements yi dañ koy yeggali mais dañ koy def ay joyanti parce que scandale foncier moo ci nekk. Mhm, xoolal li xool mburkaat lu xew euh, demal commune Malicounda demal nga dem commune Diass hmm. demal nga dem Sindia mais da ngay xool maire yooyu yëpp ñu ci bari ils se sont enrichis illicitement illicitement avec l'argent du contribuable gis nga sans problème programme cent mille logements yi bu ñu ko jaaraloon ci yoon boo xoolee ba ñuy def plan d'urbanisme boo ko liiree hmm. nga xool li ko président Macky Sall waxoon ne loolu lañ fay def mais y a un détournement d'objectif ay nit lañ jël jox leen ay dizaines d'hectares au détriment des populations démunies président de la république son excellence monsieur Bassirou Diomaye Faye loolu la bëgg a jooyanti mooy lu ñu wax ne dañ koy jox askan wi pour mu yegg ci moom. Mhm. revenant à la campagne agricole. Oui. premier ministre annoncé ne loo xam ne gulet mu am les producteurs agricoles ñetti at a ngi nii fayeku wuñu te premier ministre joxe na directive pour ñu mun leen fay seen bor te gis nga entreprise yi nga xam ne le secteur privé Mamadou bu ñu leen joxul seen xaalis bu ñu leen fayul maanaam économie bi du a dox. taxaw parce que y a des pour le développement du pays il faut un secteur privé fort dama lay jox benn exemple rek boo xam ne euh, nga xam ne ñu ngi jëm ci euh, euh, nawet bi mooy le problème des inondations dangay jël direction générale bu ci mel ni ONAS nga xam ne chaque chaque semaine mi ngi def un suivi une réunion hebdomadaire bi nga xam ne avec les euh, opérateurs de pré hivernal opération pré hivernal mhm. def ko ak ay acteurs yi man secteur privé laa bokk am naa samay collègues chef d' entreprise yi nga xam ne amoon nañ fa ay marché man nag aw mosuma fa am marché ñoom ñi may wax ne ma y' a un certain daaf euh, Cheikh Ahmadou xaw ma Bamba fàll boo xam ne ba mu fa ñëwee ba tey maanaam dafa apuré def benn système ba nga xam ne dafay apuré les dettes benn somme lu ëpp un milliard la fay les entreprises contractantes xam nga loolu dafa am solo parce que day permettre sous-traitant yooyu mën a gën a jaaju mën a def mën a liggéey parce que bu ñu la ameelee xaalis yow nga ameel keneen xaalis man état man état man man état man amel na ma quatre-vingt-quatre millions loo xam ne def na ñetti at mënuma mhm. koo fayeku donc am na entreprise yu bari yoo xam ne daaw boo xoolee rapport ANSD am na entreprise yu bari yoo xam ne dañoo daanu li leen daaneel mooy dette intérieur mhm. parce que njuuj njaaj bee ci bari donc ONAS moom lu ëpp un milliard daaf boobu ma lay wax Euh, un certain Fall Bamba Fall fay na leen ko jël na euh, mbir yëpp yóbbu ko trésor donc comme damay ñaan le premier ministre Ousmane Sonko comme ni mu ko defee avec les producteurs agricoles. Mhm. ba fay leen seen boru diggante deux mille vingt et un ba deux mille vingt trois maa ngi koy ñaan moom it chef d' entreprise yi nga xam ne ñoom ñoo yor les PME et PMI seen chèques yi nekk au trésor ne leen dimbali. pour ñu mun leen ko fay parce que bu ñu leen ko fayee ci la ñuy mën a di def recrutement ci la ñuy mën a xeex le chômage mhm. ci la ñu mën a gën a dooleel économie sénégalaise ah, par rapport euh, euh, ak rupture bi ñu jaay est-ce que ñu ngi ci jamono ji euh, benn il nous avait promis de de placer les plus méritants au poste yi nga xam ne ñoo yor maanaam ñoo yor réew mi avec ce qu'on a vu dernièrement ci nomination yi on est loin du du compte benn la ñaar aussi pour qu'une administration soit performante les hommes qu'il faut la place qu'il waa mais Mamadou euh, dama lay laaj benn poste boo xam ne président de la république son excellence Bassirou Diomaye fay jox na ko kenn koo xam ne sénégalais yi taf nañ seen gémmiñ ñu ñu jox yëpp c'est-à-dire ay profil la yoo xam ne dafa dëppoog li ñu leen jox. mais y' a pas eu d' appel dama lay jox exemple rek non appel à nag candidature ko waxoon. non appel à candidature bu ñu ko defoon dootu profil yu gën a impo intéressant dina dina génn. waa appel à candidature dina am. dina am c'est que dafa am ñoo xam ne dañoo yàkkamti xam nga ñi fi jógee ce sont des jaloux yi nga xam ne mu mënuñu opposé wu amuñu programme parce que ñoom fu mu toll nii ils sont dans un sommeil tellement profond appel à candidature man secteur privé laa nekk am na ci ay multinationales yoo xam ne des direction générales yoo xam ne dañuy def appel à candidature mais dama lay jox misaal tey jii bu ñu defoon appel à candidature ARTP wala LONASE wala euh, Sénégal numérique wala wala port autonome de Dakar. Mm-hmm. est-ce que xam nga ne minimum. procédure bi dina def juróom-ñetti weer léegi juróom-ñetti weer dinañuy bàyyi directeurs généraux yi nga xam ne Macky Sall moo leen fa bàyyoon rapport jàpp leen ñu sàcc ak alalu réew mi di jaabaa jonge di noos ñu bàyyi leen fa juróom-ñetti weer. donc ñoom bañ koy wax moo nekkoon derrière mauvaise foi wala ñàkk xam non non dinañ ko def. benn la ci non dama la mauvaise foi am na du mauvaise foi xam-xam bu wér moo nekk dans la coalition Diomaye et dans Pastef li ci am mooy appel à candidature on a des on a dit certains postes te bu ñu demee ba ci kanam dina am dinañ def comme li ma la wax réforme ci administration bi dina am ay direction yoo xam ne dañ koy boole parce que euh, régime bi fi nekkoon dafa jël ay def saucissonnage bëgg a euh, jox benn clientèle politique ñu jël ay direction yoo xam ne yaa ma neex di ko tas di ko tas pour jox ko ay Samba Ndioro Ndiaye yaa ngi dégg ay kalabante yoo xam ne mënuñoo yor léegi président de la république dafay jël yenn direction yi boole ko. Mhm. appel à candidature boobu dina am. mais dama lay jox benn exemple rek ma daaneel. da ngay jël CDC nga xam ne sànq lañ doon def euh, passation de service. Mhm. Fadilou Keita cadre la fa woon directeur la fa woon ñu def ko directeur général CDC mérité na ko. ñaata nekkoon ci digganteem ak DG bi. ah ñaata ñaata ñaata ñaata nit ñoo nekkoon digganteem ak DG bi. waaw xam nga nag dafa am li wax mooy. bu ñu ko tegoon ci euh, profil rek ak compétence. fajulu neew ma amu ko mais je veux dire par rapport ak fi mu nekkoon am na ñu ko féete kaw ñoo xam ne xëy na bu ñu ko demoon appel à candidature ñoo mérité waaw xam nga li may wax li may wax euh, euh, jeune Pastef yi Grand Yoff ak ñi may wax jeune Sénégal yëpp mooy boo ànd ak nit ba fal ko le président de la République mhm. benn nit la ñuy fal fii may wax ak yow président de la République Bassirou Diomaye fay la tudd moom ku mu amal pour rendre ko compte mooy le peuple sénégalais moom rek la constitution bi jox mu fal ku ko neex kañ la ko neex ak fu mu ko neexee donc problème de nomination problème de confiance la. sauf mais dafa am dafa am moo tax ma ne la moo tax ma ne la. amul kenn koo xam ne ci nomination yi ñu ñuy def aussi bien dans le gouvernement que dans les directions stratégiques amul benn nit boo xam ne président de la république fal na ko. te Sénégalais yi taf seen gémmiñ ne kii mënu ko. mais am na lenn loo xam ne lu am solo la aussi euh, parce que ils avaient promis benn rationalisation moo tax ñu boole yenn services yi boole yenn ministères yi mais loolu dinañ mën a maanaam la même personne dina mën a occuper euh, lépp li nga xam ne dénk nañ ko ko comme ku El Malick Ndiaye par exemple li ñu ko jox dafa bëri. tey ji nii y' a y' a des problèmes transport aérien nga xam ne secteur à la euh, transport terrestre la la chose il est au four et au moulin maanaam loolu yëpp aussi est que du woon euh, loo xam ne da koy diggee commencé ko après mu am problème nga nga jéem ko yaatal moo gën. waaw xam nga macha allah on touche du bois ba fi mu toll nii euh, gouvernement bi gisaguñ ci jafe-jafe tey yaakaar naa ne ci ñaanu sénégalais yi ak ñaan ñu baax ñi jafe-jafe du am par rapport ak ministère boobu. am na ci ay yeneen ministères yi nga xam ne. mais am na yeneen ñu boole sport culture ak xaw loolu loolu dafa am solo. parce que rationalisation dafa am solo ndax mooy li ma la wax sànq saucissonnage pour mbëgg a bégal say alliés politiques moo taxut ñi fi nekkoon maanaam daggate mbir yi. te ñi ñu ko jox ñi ñu ko jox maanaam dina am efficacité parce que ñun ñuy jàng management des organisations xam nañ ne donc euh, bu ñu la joxee un gros ministère. Mm-hmm. lu mu rëy rëy rëy rëy da ngay piloter da ngay déglu. yaa ngi dégg da ngay gérer donc am na ay ressources humaines de qualité yoo xam ne ñu ngi dans l' administration publique ay directeurs lañ ay directeurs simples lañ ay conseil lañ ay experts lañ. Mm-hmm. ñooñu ñoom ñoo leen nekkal sur le terrain ku ci nekk defal la rapport maintenant ça revient au ministre de prendre une décision moom bu ci jëlee mu jël ko jox ko premier ministre muy njiitu gouvernement bi moom tamit mu arbitré buñ ci gisul mu yóbbu ko le président la république mais macha allah nañ ñaan yàlla ba fii ma wax ak yow mbir yi mi ngi dox. te dafa am urgence bi nga xam ne sénégalais moom la ñuy xaar. Mhm. mooy dund bi dafa war a wàññeeku. te dina wàññeeku ci fan yu néew. mooy essence bi dafa war a wàññeeku naka lañ koy dañ koy defee. waaw non xam nga loolu nag man nag man Lass Badiane nekkuma ci guvernement non mais mais nekkuma ci état mais dama la wax ne la. pour dire que ne le président ñu a mën a dama lay wax ne la ñun. FMI da leen a xoj jamono ji. non FMI xojuñu xam nga dama lay jox benn parenthèse en 30 secondes ci wàllu FMI. Mhm. FMI mooy benn Samba Ndioro boo xam ne day fekk nga yor sa kër mu ñëw ne la da nga am problème dépense man mun naa la lebal dépense. mais ni nga koy mais doo jënd mbasin doo jënd gaz. Mhm. say doom du dem privé boo feebaree doo dem clinique maanaam nii ak nii ak nii nga koy dépensé maanaam diw bu la amalee xaalis moom lu amoon jaay bu la amalee xaalis nanga nga fexe mu fay la. Mhm. laas bajaan bu la amalee xaalis na nga fexe mu fay la chaque juróom benn weer dinaa ñëw xool ndax laas fay na la Momadou fay na la est-ce que commencé woo sol gestionnaire. Mhm. FMI noonu lay doxee ñun nag dañoo bëgg changer de paradigme waxuñu FMI dafa bondé mais suñuy ressources suñuy ressources. bëgg appuyer intérieur lañ bëgg a sukkandiku mhm. d'abord. Mhm. parce que dafa lay wax ne la njuuj njaañ bi am ci réew mi Mamadou sénégalais yi xam nañ ne bés bu arrêté Sénégal am na ci ay fuite de fonds de centaines de milliards yoo xam ne. mi ngi échappé que le fisc mais am na ci ay chefs d'entreprise yoo xam ne mais duñu fay impôt. waaw bari na fi. ay industrie minière ay ay ay ay borom mine ay industrie yu mag ay homme d'affaires yoo xam ne dañoo lëkkaloo ak certains patrons de presse ñu leen di dóoral te du ñu fay impôt. mais que dites-vous des sénégalais yiy mbubboo seen tur di liggéey ay tubaab yoo xam ne leen di euh, tere ñu ñu ñu ñu fay impôt maanaam dañ leen koy yombalal comme ce qui se passe dans le secteur de la pêche. par xam nga moo tax ma ne la joyante day am. xam nga publier nañ la liste des navires <laughs> autorisés qui qui qui opèrent sur le pavillon sénégalais mais dinañ jéggi foofu dinañ dem xam nga euh, loi bi fi amoon moom moo may nga dem liggéey ak beneen xeet du ma tudd turam sénégalais boo xam ne da ngay dem créer benn entreprise capital un million ñu ne dañ koo sénégaliser. Mhm. fekk yow sénégalais bi salaire u cent mille lañ lay fay. te kooku mu ngi def chiffre d'affaires ay douze treize milliards. Mhm. loolu day soppeeku parce que accord de pêche dañ koy négocier waat accord rek convention yi nga xam ne euh, euh, daf ñoo. c'est des contrats mais waxuñu dañuy sànni lépp. Mm-hmm. ñi jiite réew mi président de la république nante la du ngaaka dina nax ñu bari nag dañ koy gis mu noppi noonu ak premier ministre ñu foog ne xamuñu état ay nante lañ xam nañ fi ñu war a jëlee xaalis te ñoom li leen soxal. mooy bugguñu jëlee xaalis mooy yokk ay impôt ci néew di doole yi mhm. dañoo bëgg jëlee xaalis ci ci nga xam ne daanuñu woon fay lempo ñu jël ci ñoom lempo dugal ko ci peuple sénégalais bi nga xam ne dafa sonn donc am na ci ay entreprises yoo xam ne depuis dix ans quinze ans fay ñu impôt am na ay hommes d'affaires yoo xam ne jox nañ leen des centaines de milliers de mètres carrés mhm. ñu am ci ay hôtel am ci ay résidence am na ci ay industrie minière te duñu fay impôt lan moo tax yow Mamadou Awa yow sa bulletin de salaire ñu dagg ci impôt dagg ci parce que da am njaboot man ñu dagg ma. Mhm. chaque at ma dem fay impôt parce que yor naa ay entreprise lan moo tax ñoom ñi nga xam ne ñoo ñu ëpp xaalis am ko illicitement lan moo tax duñu fay impo moo tax it day am ay redressement fiscaux moo tax it ku ci demul service des impôts na nga dem loolu conseil bi nga xam ne Lass Badiane moo la ko jox parce que réew mi dootuñu nangu euh, ñi nga xam ne dañuy ñëw jël. alalu réew mi ay milliards te duñ ko jox li nga xam ne daf leen war mooy seen devoir citoyen duñ ko mhm. def fi mooy daanelee mooy dalal xelu sénégalais mhm. dalal xelu sénégalais yi ci nguur gi weer la amagum xëy na nit ñi dañoo yàkkamti rek <laughs> waaye nguuru seet la ah. te ceet gi mi ngi tàmbalee neex ceet gi mi ngi tàmbalee neex parce que sénégalais yi nga xam ne est-ce que xam nga ne Mamadou ñun ah, suñu candidat nekkul woon candidat des riches Amadou baa moo nekkoon le candidat des milliardaires. vous avez fait un mauvais procès. non parce que sénégalais tey rapport yi benn épinglé wu ko. tooñ ngeen parce que fi mu bokkoon rapport dem na fa te déwén rapport bi dina génn bugguma ci débat. jërëjëf am na ñu mu doon àndal ñoo xam ne ñoo ko doon jàppale te wax dëgg yàlla fi mu toll ñu suñu candidat borom ngooñ yi jaaykatu kafe yi jaaykatu jën yi ñoo ko doon nattal di jënd ay bracelet. ak doon manifester ci mbedd mi. maanaam ànd ak moom sur un programme structurant. ba yàlla dogal mu jël réew mi jox ko le président Bassirou Diomaye Faye ak son premier ministre Ousmane Sonko jërëjëf maa ngi lay sant di gërëm bu baax euh, ñi ñu doon seetaan di nuyu waa Grand Yoff sama gone yi mhm. waa Pastef Grand Yoff nga xam ne am na ay ndaw yu yu jàmbaar ñoom Mohamed Dramé ñoom Momo Ly ñoom euh, Souleymane Jules Diallo ay ndaw yu intellectuels yi nga xam ne ay jàmbaar lañ liggéey nañ ci projet bi ba yàlla may ñu nam maa ngi leen sant di leen gërëm jërëjëf di ko sant bu baax moom Lass Badiane moo nekkoon sunu gan président du mouvement jëm kanam bokk euh, coalition Diomaye président di dajee lundi incha allah ak beneen gan 19h30 laata loolu le 20h c'est dans un instant Germaine Diouf Tabara merci beaucoup